salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sen Teranga TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan ci topp bi ngeen ñuy topp dellusiwaat nañ seen euh, entretien du jour entretien du jour nag euh, nekk émission bi nga xamante ni saa yu ko actualité laajee dañuy invité ki nga xamante ni euh, xam-xamam dafa màcc jëm ci lu ñuy waxtaane tey ñu am mbégtewul dalal ki nga xamante ni moom mooy Black Rocky di tur artiste waaye nag turam dëgg mooy Alassane te Alassane maa ngi lay nuyu. Mhm. taalal micro bi Alassane. maa lay fayoo maa ngi tudd Alassane. Mhm. le vrai nom dëkk Tambacounda Kédougou. Mhm. donc euh, prêt à répondre toutes vos questions côté. migration bi lu xew mbuur donc maa ngi leen di déglu. waaye li li waral waxtaan bi comme ni nga ko junjee léegi xam ngeen ni jéye bu doy waar moo am fa li nga xamante ni moom Mbour depuis dimanche ab gaal bi nga xamante ni danoon wuti bu cim réew daa di këpp euh, capitaine ba jamono ji teg nañu ko loxo waaye jamono bii ci bilan bi ñu ngi wax ni euh, lu toll ci 36 personnes la géej gi la ñu repêché maanaam géej gi ci ni mu goxi 36 personnes la et malheureusement sax ñu bari dañ leen di faral di jenc daanaka ci wetu tefes gi parce que seen i corps nu mu mel doy na waar trop xam naa du ñàkk seen dinañu illustrer vidéo bi ak jafe-jafe yi nga xamante ni waa Mbour ñu ngi koy dund Sénégalais yëpp d'ailleurs alors moom mi nga xamante ne mooy Alassane di fàttali leen li tax ñu daal di ko fi invité moom dafa jaaroon ci gaal yi c'était en 2014 daal di dem je pense euh, Espagne Libye Libye la jaar Italie après ba ba teere Italie alors Alassane ba ñu doon expliquer à peu près phénomène bi ça date pas d'aujourd'hui d'accord mais yow ban année exactement nga dem ak si ban période la tombé loolu alors euh, man euh, 2014 fin 2015 laa waaji yoon bi bi ma ko waajee nag 2016 laa xam ni tàggoo naa sama yaay euh, jaaree ko Medina Baye dellu Kédougou jaar euh, Ouagadougou Mali Burkina libi itali bon li ko waral mooy. gaal gi fan la déparé woon. gaal wi Libye la déparé. Mhm. Libye la déparé kon nan nga def ba dem ba Libye. bon oto lañ demee maanaam Medina Baye Kaolack laa jëlee départ oto fay wàcc ñaamee mooy Niger après Niger avant Niger d'abord Mali Ouagadougou mooy Burkina Faso après ñu dugg dëkk bu tudd deuxième capital de Niger euh, Niamey bi ñu yegsee Niamey nag foofu ngay fay pour nga mun a dugg Libye mhm. léegi nag boo yegsee Libye ñaata nga fayoon ci gaal gi bon gaal bi quatre cent mille laa fayoon mhm. 400000 laa fay pour malheureusement bi ñu fay 400000 ñu jàpp ñu ñu delluwaat prison. ah bon bi ñu delloo prison dañu fayaat ku ne 200000 pour nga libre léegi ba fay mille mhm. da ngay liggéeyantaat beneen xaalis mooy yeneen mille boo amee sànq nga génne prison pour nga mun a fayaat beneen gaal. donc économiquement j'avais un million. ñooñu ñooñu la jàppoon. <coughs> bon ñi ma jàppoon je peux dire euh, yi la. ak euh, naar yi. sa mbokk sénégalais yi. waaw sama mbokk sénégalais moo ma jàpp moo ma jaay donc euh, moom mooy day def complot ak naar yi donc day ne sama gaal day départ suba comme tey ji maak yow ñu nekk sénégalais ñu yàgg lool li bi léegi yow sa naar bi nga nekkal <coughs> ak man naar bi ma nekkal donc man feesal naa sama gaal maanaam j'ai eu quatre cent personnes cinq cent personnes ma nar a gaal bi nar a départ si guddi yow dama lay wax sa naar bi pour ma jaay man sama gaal man ak sama naar bi njaay bi nan la demee oh ils ont tout ñoom fay nañu ba pare léegi ñu on veut plus d'argent dama lay woo yow jaay naa la gaal bi deux millions <coughs> bon dañuy waxtaan ba juboo nga ne ma fay naa la un million cinq cent donc ma avancé la un million léegi dama lay woo guddi bi may pousse pour yow sa asma booy asma booy mooy bandi yor moto ci géej bi ma woo la puus naa gaal bi heure nangam léegi yéen seen TFS ga euh, seen asma booy fa la dugg quoi arrêté ñu. Mhm. delloo ñu seen prison yéen. la après cinq cent mille bi bi des da nga koy euh, fay sawaay maintenant yow tamit lu la neex nga def yow ak sa naar bi lu la neex def tipo ku ne fay deux cent mille d' abord génn si sa prison encaisse waat yeneen quatre cent mille par personne pour nga mun a puusaat sa gaal. si on toujours malheureux yow tamit mun nga ko jaayaat beneen sénégalais bi nekk Tamba pour de mais tout lépp biir li bi la ko mhm. donc boo amee sax mun nañ la jaay jaayaat jaay jaayaat. Mhm. mbir mi nii la man nag euh, benn yoon lañ ma jaay ma fayaat deux cent mille génn ci prison boobu takkalewaat ci tool yi parce que sama capital bi ma yoroon jeex na après dama dem ci tool yi takkale. boo amaat yan tool yi nekk fan Libi. waa Libi. mu ci pour nga dindi leen orange yeeg eh, si chose ko quoi falaa takkale bu amaat cent mille moo woo sama benn grand frère Boubacar Kanté mu leb benn xaritam marché poisson lay jaay mu ngi tudd sori ma al ko cent mille ma mottal yenn cent mille yi ma fay ko ci gaal euh, lii la yàlla def euh, ñu jàll mm. Mm, euh, mais foofu dundoo fa ay torture laas prison mais bien sûr alors foofu kay de toujours da ngay ne suba damay dee. Ah parce que def naa trois mois les trois mois c'est comme si def naa. trois mois nga def ko Libye trois mois. mais ces trois mois ça m'a comme si nga ne trois ans rek parce que les un mois en prison bi am na ay bal fetel si tànk bi fii. dañu door ay bal fetel waaw les tas fii nii doo ko mun a gis da nga xaw a sori bi bopp fetel la. mooy dernière euh, action bi bi ma gën a métti moom laa mujjee am. mais dóoruma fetel nii mais daf ma dóor bopp fetel bopp fetel la la dóor si bopp waaw biñ doon rànc ci TFS bi pour dugg ci gaal gi léegi li boobu jàllee avant ngay àggali bi les problèmes ont démarré à Niamey mooy Niger problème yi fa la tàmbalee mhm. donc Niamey mooy foofu mooy frontière moom ak Libye là aussi fii dañ dañ lay yóbbu prison une heure de temps nga fay cinq mille dix mille mais quand on calcule les cinq mille dix mille c'est environ deux cent mille francs li ngay fay avant ngay àgg d'abord libi parce que entre nous même on est méchant d'abord mhm. mooy Bamako Ouagadougou Niamey léegi Agadez foofu def nañ prison mais du prison quoi genre cour la nga fay vingt mille nga génn boobu c'est en Afrique boobu mooy mhm. toujours Afrique noire quoi je parle pas de Libye léegi Libye <clears throat> avant ngay àgg ci capitale bi euh, Trablouze mooy mhm. Tripoli quoi di nga def Gatroun def Zabrata Euh, def Zawiya parce capital euh, capitale dafa xoccoo mooy les première villages yi ngay njëkk a dugg. Mm. donc village bi nga njëkk a dugg Libi ba nga àgg ci capital bi yaa ko dee bandi li ko waral mooy seen président nekkutu fa Kadhafi donc sakon ku ne am na arme. en ce moment Libye était comme l'Amérique mm-hmm. à l'âge de dix-huit ans vingt ans ku ne am na sa arme quoi donc nit ku ñuul or la woon foofu parce que bu ñu gisee nit ku ñuul dañ leen di utiliser ci mbay mi. Mhm. deuxièmement bu ñu soxlaa xaalis dañ lay tiire bal mais doo dee parce que fu ñu la koy tiire du la rey. yow dañ la tiire bal. man dañ ma tiire bal. fan lañ bal. bu ñu paree émission moom wala kii bi. Mhm. Euh, les traces sont quoi. bal bi dugg na quoi. bal bi dugg na ba génn muy fi. boobu si daanu ma daanu. après moom moo lay dem aussi defal euh, mooy. kii waa passion et tout. boo xawee wér tuuti na bal wala. waa génne nañ la dafa am. France dañoo déplacé woon comme genre mm, ñii di. ñii di occupé ñii feebar yeeg. ay comme genre croix rouge yooyu. yi ñoom bari nañ fa quoi. on le fait gratuitement mais bu doon ñoom ñooy faj moom il préfère ñu defal la dernier bal nga dee. sa naar moom du faj nit ku ñuul waaw moom moo gën a bañ nit ku ñuul naar. Mhm. léegi euh, nit ku ñuul nekkoon na or. Mhm. maanaam bu ñu la gisee rek seen day feex. tool yi lañ lay xalaatee deuxièmement xaalis bu ñu ko soxlaa dañuy tiré bal mhm. bu méttee bu métti dangay ngay wax say mbokk comme tey jii yow nga nekk Libye mhm. sa famille nekk fii bu ñu ma tiré bal yow da ngay ne joxal ma diw cinq cent mille yow da ngay joxe dinaar yi foofu naar yi quoi dinaar yi mais yow sa famille dina jot CFA bi fii mhm. voilà donc les conséquences mënuñu koo wax yaay nga dund ko kaso Libye d'accord léegi bi ñu jógee bi nga génnee Libye léegi naka nga dundee si bi nga nekkee si gaal gi si biir géej bi boobu dañu doon dem Italie direct wala. alors euh, bi ñu poussé aljuma ndeysaan vendredi le 23 la ñu pousse guddi foofu lañ ma dooroon bal bi fi kii astafurla bopp ah, fetel léegi dañ def rang 23h la ñu départ 23h 7h du matin la ñu àgg entre ndox Afrique mooy frontière njaari ndox yi. Mhm. partie Europe partie Afrique léegi foofu boo fa àggee rek. a à partir de cela police libyen mënul si dara si yow c'est déjà tué dans le continent européen léegi bi ñu fa yegg see ñu fekk fa bateau ba mhm. je me rappelle très bien man dama bëri woon sang quoi mhm. da nga bëri woon deret man lañu njëkk a xëcc ci bato bu mag bi muy tubaab bi mais après la def nañ tamit une semaine pour ñu àgg première ville euh, Libye mu ngi tudd Euh, nu mu tuddati um, Zawiya um, première ville bi parce que ñaari voie la. Mhm. sept une semaine ñu dugg dëkk bu tudd Catania mooy première ville Italie Catania. am na ñuy duggee tamit. Sicile mais mais yéen yéen kon yéen par exemple duggoo leen ci gaal ci bato ngeen dugg maanaam géej bi lan ngeen dugg quoi bi ngeen dem Italie laa. bëgg gaal gaal gaal bu ñuy pompe léegi foofu yéen jafe-jafe ngeen fa jot a ñaata jour ngeen am ci yoon bi d' abord. non amul jour ay heure la. ay heure ah d' accord waaw ah, parce que. li bi 23 heures aljuma 23 heures 7 heures du matin on est arrivé au bateau. Mhm. maanaam tubaab yi ñuy sauver nit ñi. yegg si nañ fa quoi. c' est contrairement les gens qui de Mbour. en Espagne. Mhm. bokkul. Hmm. c'est vrai moo gën a métti parce que bee dañ leen tëj trois mois dañ et cetera lan la may différence départ Mbour ak départ Libi. la différence bi énorme énorme la ñàkk xam fi ngay jëm ak ñàkk déglu say mbokk ñi dugg wala nangu ñu la wax dégg bi fa nekk sinon doo jël gaal Mbour. Hmm. jël gaal Mbour baaxul. ils sont pas conscients. ah pas conscients ce qu'ils font. benn ñaar ñi nekk ñi fi ja ñi ñi ñi fi jot a jaar bu yàlla jàppale li ñu dugg waxuñu leen lu ñu gis expliqué wu leen dañu leen jox courage rek mais waxuñu leen conséquences yi mhm. li bi dafa dafa jege Europe trop quoi donc mhm. ay heure ay heure lañ fa doon nga baal ma mais bon li ñu taxaw si mbuur bi bala ñoo eggale ci lii bi pourquoi lan moo tax nga jàpp ni jigéen mbuur dépare mbuur dem Euh, peut-être Espagne wala Italie ak yooyu moo gën a metti jaar yoonu Libye bi. moom ci côté métti Libye bi moo gën a métti ci wàllum torture. Mm-hmm. mais fii on par de la distance. Mm-hmm. parce que gaal. bi nga pompé yor ay bouteille essence teg ko sa wet maanaam yow sa dund ci moom ngay xalaat bouteille essence bi ba des na loolu rek mooy say problème ak mais distance bi. Mm-hmm, day bari ak fi ngeen toog moo wóorul. dafa mel ni si si kaw ajaraa yi ngeen toog. Mhm. parce que jaaruma fa. Mhm. mais d' après les infos dañ ma ne si euh, premier jour deuxième trois quatrième jour ngay romb Maroc si marin marine marocaine bu ñu la gisee quatrième jour dañ leen di déport. ñu leen déport daal. cela Mbour ba Maroc quatre jours la ak yeneen trois jours nga mu soog ak mhm. euh, Espagne. total mooy une semaine. ci géej donc guddi géej dafa mel ni guddi bàmmeel. c'est la ci naka. bu di bàmmeel mon premier jour de temps nuy dans ta tombe comme si tu es yaa ngi si biir gaal bu ñu pompé. nekk ci diggu géej benn la seulement là tu respires mais tu es un vivant lu tax ma ko loolu gaal bi ma toogoon lii bi de fait que ce sont ay heure la heure la kese mais biñ ma ne gars yi dañuy def six jours ci géej moom ak ki dee ki nekk si biir bàmmeel li leen ute l'autre il respire mais il attend sa mort l'autre il est déjà mort mu ngi xaar les questions mooy malayka mm. mooy différence bi rek kenn mu ngi déglu dernier question ci malayka kenn mu ngi déglu ajaraaylu nu muy ñëwee si moom parce qu'il mm. pense plus la réussite en ce moment mm. du xalaat xaalis du xalaat yaay du xalaat fu mu jóge ba nekk moom génn na ci moom donc c'est un mort vivant je peux dire ki fi def une semaine de Mbour en Espagne sont pas conscients ak ñi fa jot a dugg. waxuñu leen tamit aussi la vérité ce qui se passe en Europe. waaw loolu loolu loolu dinañ si ñëw mais pour ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy jógee ay Mbour et cetera wala Joal ak yooyu jàpp nga ni gaal yi nii war na mën a def plus de cent personnes. non xam nga loolu lu tax ñu def ko loolu. Mhm. souvent la source la base elle est très importante dans un pays. gis nga oto yi nu koy sarde ci dëkk bi fii les bus minicar yi nu ñu koy sarde boroom gaal gi ci fa sukkandiku def surcharge moom tamit ci gaal gi ay xam-xam ñoo fa nekk maanaam borom gaal bi. Mm-hmm. dafa def surcharge bu ñuy def si biir dëkk bi. Mm-hmm. moom la def foofu. géej gi ci géej gi. ah mais par fii nañu ne géej amul bànqaas amul loo mën a jàppandu xëy na loolu mooy différence bi non. wooy mais gaal bu dee gaal bi ma jaar man bu dee genre yooyu moo jaar li mooy bu sambureer bi. Mhm. te moteur cinquante. Mhm. capitaine bi yor ko bu dee yooyu la dafa am yu mag nag ak yu ndaw ñun aussi c' était surcharge on était six cent cinquante personnes. six cent six cent cinquante. 650 personnes. waaw 650 personnes seen gaal mais gaal bi dafa rëy. amul kenn ku toog sa kaw moroom. mais seulement c'était un peu serré. Mhm. mais gaal bu rëy la. léegi nag d'après les infos gaal yi ñuy defar fi ay gaal yu ndaw la. Mhm, gaal artisanal yi. ga waaw gaal artisanal. bon gaal ya sax ñoo gën a am sécurité mais bi ngay yóbbu bi nat bon je sais pas comment gaal mhm. yooyu nu nu mu tudd. bi ngeen di yóbbu di def nii. waaw yooyu ñoo sax gën a. na kii ma gën a am. Mhm. donc donc yow donc yow léegi bi ngeen demee bi ngeen jógee libi ngeen dugg Italie ah. Italie waaw. ngeen xaar ngeen ngeen egsi ci ci côte bi gars yi jël si leen. waaw ci côte bi. foofu noonu la moo tax ñu njëkk la génnee yow. parce que j'avais de sang. bëri woon deret sa yaram. parce que 23 heures lañ ma door man ma def ni je pense que c'est l'eau comme que ñu ngi ci TFS bi bu ma defee ni gis deret te ma yuux mais centé la douleur c'est la que je la douleur est personnelle le bonheur se partage mais noppi rek bañ amaat beneen effet léegi nag yére bu weex mm-hmm. deret moom du boo ko fotul du deñ mm-hmm. donc ak moo tax ñu tellement xëcc biñ ma jëlee ba pare liir yi fa nekkoon ñu jël ak yooyu tamit. kon seen seen gaal dafa am ay liir. ay am na ay liir parce que sont des filles de Nigéria de Gabon de Cameroun. waaw parce que dañuy dégg gaalu euh, dañuy dégg gaal mi ni amoon na ay xale ay xale yu ndaw donc loolu nag la mën a nekkee nit dugg gaal yóbbaale liir liiru ñaata mois par exemple yow yi nga gisoon. alors là c'est une très bonne question lii tamit je pas ñi nar a éradiquer ces phénomène je pas ñu ngi euh, tëj seen bët wala ils veulent pas écouter des trucs tey jii boo gisee seen une jeune fille de vingt cinq ans xaw ma vingt deux ans. ay boy de 18 ans boo kii je pense que hmm, côté boobu noonu état bi xëy na ñu ngi bëgg def ñu ngi xaw a bàyyi seen loxo mais boo gisee à l'âge de vingt cinquante ans déjà tu t'es découragé dans ton propre pays mm. am na motif premier motif man li ma jot a jàngaat ci wàllum dee booy yi benn cak-cak yi jagartaay ci dëkk bi mm. xataraay bi ñu leen xatal nu ñu leen di lu ñu foraatu. de six heures du matin ba dix huit mhm. nga ñëw nangu lépp lu mu yoroon. mais ce bu gisee bunt même bu dee bakkanam dafay des mais il va partir en tout cas man loolu laa gis vingt cinquante des déjà tu t'es découragé dans ton propre pays amoo trente ans joxe wa d'abord dépense comme ñi yor ñaari jabar yor dix enfants. d'accord à vingt cinq je vais lancer un si ñun Modou Modou ñi fa nekk. d'accord loolu dinañ si ñëw fa la ñuy la ñuy daanele waaw. qu'il arrête a ah, voilà foofu lañu daan alors dama bëgg nga taxaw un si gaal bi nga nekkoon bi nga duggoon dafa amoon ay liir liir bi à peu près ñaata mois ñaata mois lañ. waaye 6 mois. ay liir bi am 6 mois. yaa am am nañu wasin ci bateau bi. bi ñu duggee ba pare xëcc. Ah. ndax kontaan ak émotion bi ñu duggee ci bateau bi am na nañu wasin foofu mais ce sont des filles nigériennes. Mhm. amul benn sénégalais jigéen mais dañu ëmb ba dix nekk benn jigéenu sénégalais laa nekkaloon camp bi ma njëkkoon nekk mu ngi tudd Zabrata boobu c'est en Libye mhm. boobu maa ngi am deux semaine dañu naa wax benn gel mu ngi dëkk Casamance ci laa xam ni mus naa daje jigéenu Sénégal ci yoonu Libye apparemment ay Guinée Conakry Mhm. Euh, y en avait peu. après mooy. dëkku ñag mais mais mais mais loolu doy na waar parce que ëmb ba diis dugg ci gaal mais est-ce que problème yi ñu wax naan dafay am si gaal yi bato yi surtout ñuy tukki ndax jot nga ko gis ay jàpp xale yi di tëddee di violer di leen forcer di leen def naka su lu noonu ak yooyu. <coughs> alors euh, je peux de 2011 euh, na euh, Libye seen jeunesse bi seen jeunes yi am nga naar pour mu takk jabar il faut qu'il soit riche. boobu seen cosaan la il faut une maison une belle maison une voiture pour nga soog a wax waxu jabar naar mooy seen cosaan maintenant naar yu bari si jigéenu africain yi mooy yoonu libi bi ci lañuy ñuy découvrir jigéen et là ils à torturer ah esclavage ñu teddee leen moo tax liir yu bari am papa marocain et aussi euh, dugg Europe ñu adopté leen comme ça mais tamit nit yu ñuul ñuy def un an Libye un an deux ans jigéen ñi dañuy ragal génn mayo yow góor gi da ngay dem par exemple maçonnerie mhm. tool yi mhm. loo am fiançailles rek fiançailles nit ku ñuul mën na ombal foofu un Sénégalais pour enceinte une fille de Nigérien c'était du n'importe quoi je peux dire quoi mhm. jégalu ci kàddu bi mais c'était n'importe quoi. Mm-hmm. donc ñoom ñëpp li bi la amee. la ëmbee quoi. Mm-hmm. kenn ëmbul sa dëkk. Mm-hmm. ñoom li bi la ñu jëlee biir. d'accord léegi bi ngeen bi ngeen duggee italien. Ah. après yow ñu njëkk la xëcc ñu lay faj boobu xawoon nga faible ak deret beeg yooyu. non j'avais gis nga ku Sida di jàpp. nu muy jeexee. on était tous comme ça on était tous comme ça. mais biñ ma jëlee tàkk dañ ma dugal ci laboratoire. du opération de am na genre laboratoire nii genre hôpital. Mhm. dugal ci machine yi contrôler la. tout ce qui problème yëpp ñu faj la quoi en deux heures de temps man nekkaat nit. Mhm. xel bi yëpp ñëwaat ko parce que on n'était pas des jumelles complets on était mét méta méta nit lañ nekkoon méta quoi. Mhm. xaaju nit daal cinquante xaaju nit. te tu pas. tu vois flou. li ngay gis doo ko xam lan la. mun naa la xool nga nekk ñaari nit walla je vois comme un tigre nekk sama kanam. Mm-hmm. kon loolu am na quoi. gis nit foog ko gaynde wala genre yooyu. parce que gaynde affaire de. ñu kii yi de jaab la nit ki day soppeeku. effectivement loolu da leen doon dal en fait. effectivement. Mm-hmm. donc jaar li daal dugg ci fait partie des gens affaire de góor daal nekkul yoonu suuf. Mm-hmm. am naa xaalis su ma demee may dugg loolu yëpp ay wax la. gis naa on on gars qui n'a rien dafa jékki-jékki yàgg bi lool bokk ci ram bi amul fayul sax nii la duggee Europe donc du question am na xaal damay dugg kaaw. yow bi ngeen demee fan ngeen dem ci Italie bi ngeen génnee ci camp bi après naka nga def pour dugg ci biir Italie. waaw ci ville bi. Catania. Mhm. première ville après ci la ñuy tasaan ni man Toscana lañ ma yóbbu. région Toscana la fa yóbbu. tubaab bi tubaab bi lañ la fa yóbbu am ko ñu la boole wala rek bàyyi la ñoom ñooy andi seen bus comme Dakar dem dikk. comme terre bi. Mhm. bus buy dem par exemple on dit bis bi Tamba lay jëm donc on prend centaine de ñoo ñu dem Tamba. centaine de personnes dañ lay laaj sa xalaat wala duñ la laaj sa xalaat dañuy jël ak yóbbu la. non non foofu moom c'est au qui tout. Mhm. yow da ngay teg sa baaram tour sant ñu def la benn bracelet ak benn badge. ñu tasaare yóbbu man Toscana lañ may yóbbu côté Rome. côté Rome léegi yóbbee fan lañ la wàccee. mu ñu wàccee ma kër. benn gàlle gàlle comme yi rek bâtiment ah. gàlle premier étage deuxième troisième am ñi nekk si suuf ñi nekk comme ça bi nga nee bu toog si gaal bi la nga sentir bi ma toogee si gaal gi ah. bi ma toogee si gaal gi nag comme ni ma la ko waxee je n'étais pas humain pas humain complet quoi amul ragal amul mm-hmm. dara mm-hmm. c'est dafa dem ba ma jeexal tak tak d'accord léegi bi nga fa eggee après nax la procédure bi naka la demee ba nga commencé bi ma duggee Italie procédure yi mooy les problème démarrent une autre vie qui démarre. amoon nga fa mbokk bu la héberger wala. non pas de mbokk personne. immeuble bi la tubaab bi yóbbu ñaata temps nga fa def. biñ bi ma yegg sa Italie. ñaata temps laa def ci camp gi. waaw fii fi la fi la tubaab yi yóbbu ñu teg la fa. bu gàlle gàlle normal la kër gi quoi kër gi normal la maanaam. on peut dire ñun suñu kampo comme day ne Teranga TV. Mhm. ñoom ñooy occupé suñu camp ñun. Teranga TV. Mhm. suñu lekk yéen a ko yor. suñu naan lépp yàlla bu ñu feebaree yàlla mais du lundi euh, si semaine bi da ngeen am deux jours yi ngeen di jàng école. Mhm. signé mooy seen liggéey. kon tubaab yi ñoo jël responsabilité boobu dimbali leen noonu. lekk naan ñoo ko yor. juste pour dimbali leen. waaw euh, ba nga am sa kayit contrat la. bis mhm. tant que amoo kayit tu respectes règlement yi nekk foofu ñoom ñoo la gérer sa dund sa naan sa solu yére sa dàll lépp loo xalaat ñoo ñoo ko yor. Mhm. mais loolu. banque mondiale la. waaye migrant fu bëri rek. banque mm-hmm. mondiale mooy andi xaalis. Mm-hmm. mais ñoom dañ leen di fay suñu kaw. Mm-hmm. donc dañ leen di fay en ce moment nii nii nag xaw na wàcc. on paye chaque migrant peut-être. Euh, bëgguma dugg si yooyu. quoi léegi yow après foofu bi ñu la téewee après nga dem fan nga dem après bi ñu la bàyyee. wala nga continuer di fa nekk. bi ma toogee foofu euh, trois mois. li ma fa yóbbu dama jógoon pour xaalis quoi. Mhm. donc nekk fa nekk ponkalu nit. di bindi di jàng dem te jàng fii trois fois. Mhm. aw ma bac demaat tamit ñu ne on va reprendre l'école donc ma ne ko léegi looy créer pour ñu mun laa dakk parce que heure ñibbi si kër gi. Mhm. on a trouvé des gens là-bas ils sont fait trois ans. ñenn ñi def nañ fa quatre ans. parce que là-bas tu bien bu dee respecté nga loi amul kenn ki lay génnee. ak tànk jotagoo kay di normal léegi nag man ñu ne 18 heures migrants yëpp war nañ ñibbi si kër gi parce que dañ lay jàppee comme xale. Mhm. léegi nag man ma ñëwaat 20 mhm. bi ma ñëwaatee 20 heures. ñu ne ma yow mënatoo nekkaat fi si on t'a dit 18 heures nga ñëwaat 20 heures ci lañ ci lañ ma dàq et ki commence la vie. àdduna <laughs> bu beneen àdduna bi ma yaakaaruloon. Mhm. ci la tàmbali commencé fanaan ci mbedda waaw nit ñi dañuy wàcc ñu fanaan ci suuf pont yi pendant trois mois quatre mois. ngay fanaan ci suuf pont boo xëyee looy def. bu ma xëyee topp nit ñi dox. amoo kayit sa déggoo lakk bi amoo kayit. te policiers yi jàpp ñu la def ñu la dara. ngay wala daw am na ñuy ñaan sax boo xiifee. restaurant yi gars dañuy lekk bu desalee nga coob wala nga dem ñaan am na caricas aussi caricas nag boo amul ay temps da ngay ran ñu jox la benn spaghetti plat bu ndaw ak ndox ci ngay raan toujours en tant que amugoo liggéey. Mhm. mais fanaan moom mbedd ngay fanaan nga yor sa benn mbajj. bi ñëpp di ñibbi ngay. waaj euh, boobu kañ la jeex ban moment la jeex tàkk. la noonu problème bi. waaw moi j'ai j'ai vécu deux ans de problème. ah bon deux ans. ngay daw. dugg laxatu daw dugg deux ans. moi j'ai euh, jaay naa aussi jaay naa aussi si mbedd quoi. ay montre ay faux montre c'est pas de la qualité mhm. ay ceinture ay portefeuille mhm. ci tourisme yi fu ñuy daje Toscana ak ci TFS bi mhm. boo paree après nga wut foofu naan quoi ah? xanaa amoo ah nga retrouver wu ba xaw estable stable bon retrouver wu moo tax jàng apprendre c'est très important et là je lance aussi les gens qui se tuent qui partent en sans expérience c'est comme si tu es toujours dans ton pays rien ne change ci vois des immeubles qui ne t'appartiennent pas ay oto yu mool dalay mais doo gis dara doo jot dara. Mm-hmm. man jàng bi ma jàng moo ma sauvé. j'ai pas de diplôme mais le peu que j'ai appris def naa bac trois fois ma bac. Mm-hmm. nag j'ai acheté un traduction français italienne ci laa jël sama temps benn au mois ma comprendre léegi bind ay feuilles yu bëri sama tour centre numéro téléphone déposé si fabrique yi. di continuer ya un jour ñu woo ma téléphone ma tapé navigateur dem fa bi mu fa yegsee ñu ne ma liggéey bi li ak lii la léegi dañ lay test pendant trois mois duñ la signal contrat man ci affaire tissu yi laa njëkk a commencé liggéey léegi da ngay dagg lu norale nga dagg-dagg nii laa tàmbalee man dama concentré wu respecté heure bi ñu ma wax nii la sama life démarré quoi. Mhm. ci lañ ma defal contrat six mois may gën a góorgóorlu di yokk jom di ñëw heure ñu defaral ma contrat un an noonu noonu noonu euh, nii laa daal. ñaata at ñaata at nga def euh, Italie. def naa léegi onze douze douze ans. kañ nga yaa ngi soog a ñëw. non ñëw naa quatre fois. ñëw nga quatre fois bii mooy quatrième fois. mais bi ñu fa njëkkee dem toog nga fa ñaata at par exemple la nga doog a dugg Sénégal. six ans. amoo kayit. nga ñëw noonu te amoo kayit. waaw. ah bon mais après da ngay am kayit bu tudd. asile mhm. six mois. Mhm. chaque six mois bu jeexee nga dem changer. Mhm. mais bi ngay dugg Sénégal boobu du la mun a andi fii. Ah, waaw tu restes dans la territoire. italienne munoo génn waaw. donc bi nga fa defee six ans bi ngay léegi je tranquille non sa six ans yi nga fa def xam na da nga ñëw Sénégal sans papier. non non ah six ans bi bi ma toogee fa après am naa kayit quoi. am nga kayit lan nga am nationalité wala saison. non nationalité déposé gu ma ko des na tuuti. des na tuuti man maa ko kiiwul nag. préparé mais pourquoi defoo yi gars yi def takk si tubaab yi pour am kayit. non la am na ñu koy def wala tubaab ñoom ñoo la barewul wala. non man kay dama topp loi bi rek respecte fay impo ba gaa yi woo ma ma teg baaraam ñu jot ma kayit ma def ko sans poste parce la vie trop facile. conséquence day ñëw après la quoi. Mm, ñi takk jabar tubaab yëpp mujj bi. du neex du lu ñu foog quoi. Mm-hmm. ça finit mal quoi ça toujours. Mm-hmm. musul nekk daal mujj bi. te eh, yow loolu nga doon daw moo tax nga. waaw am nga soxna. waaw am naa soxna. moom mm-hmm. mooy fi. nga soxna mi ngi fii donc léegi lan ngay conseil sa déjà sa mbokk sax yoon bi nga jaar c'est compliqué sa bos moo gën a métti sax ah c'est vrai que na mais ñu lay dóor dóor la ay balu fetal si tànk loolu c'est extra c'est torture boobu noonu non mois c'est c'est grave man sax maa ngi si tànk lañ ma dóor hmm. des cadavres qu'on tire dans le jour ay balu fetal ci bopp ah sa waay ah, gris garage boo tappee nii nii gris garage euh, Euh, YouTube nga tapé Gris Garage migration mais tu vois boobu guerre la woon dañuy dagg bopp nit violation des balles fatales partout naar mhm. naar bu demee ba sës même yaayam da koy tiré waxantuma laa der bu ñuul naar mooy loolu donc ban conseil nga mën a jox sa rakk yi bëgg jaar ci géej kut ko kut ñoom c'est vrai que ñëpp bëgg nañ tekki mais ñoom kut ko kut dañu bëgg a jaar ci géej gi dem. am na benn maara toujours day ne yoonu ndaw du gaaw. Mhm. séen xaw ma mu ngi dund wala dundul mais war nañ ko sant quoi. Mhm. toujours day jàll ci TikTok bi mais les gens ignorent. Mhm. yoonu ndaw du gaaw. mais on voit Sénégal la jeunesse est précipitée à la réussite. ah mais loolu moo daloon ba nga dem. si mais mm. bokkul. dem mille 2014 12 yooyu noonu 11 ak dem bu teew ni bokkul ay l'âge de 30 ans 40 ans ngay dégg lii bi mais 18 ans 20 vingt 22 euh, at yi la commencé léegi nag je je mooy côté ñun Modou ñi fa nekk souvent y a des fausses ku ñuy def sur TikTok sur statut euh, WhatsApp te ji sa mbokk day dugg rek gis oto bu rafet taxaw ci mbedd photo aussi. def ko statut te yéen a bokkoon di defar oto fii vous étiez tous des mécaniciens. Mm-hmm. et là yow nga dugg trois mois six mois rek gis Lamborghini wala tubaab yi sànni na daalam ci buntu këram. Mm-hmm. ak benn mbubam Gucci nga ñëw sol ko gratuitement. daw dix dix pas nga gis oto Lamborghini taxaw nga ne sa waa est mun naa foto nga ne waaye fotowal nga foto ko rek dem dugal ko statut te nga xam ni am na ki nga fi bàyyi yéen a bokkoon atelier mais le gars là la l'as donné le courage d'aller à la mer. Mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. c'est incomprendre. côté boobu aussi ñun Modou Modou ñu bàyyi si xel. Mm-hmm. bàyyi ci xel bi mooy euh, bàyyi si xel. qu'ils arrêtent de montrer les fausses images. à ñi fi ñi fi demagul quoi. c'est image yu xaw a graaw la aussi. image yu xaw a yu xaw a d'accord fi ñuy daanelee waxtaan bi rek mooy bëgg nañu wax ci carrière bi tuuti temps bi moo ñu xaw a xoj. xam naa on jàpp benn jour spécialement. y a parce que bon euh, boo xam ne dinañ mën a waxtaan ci carrière bi ak projet yi. temps bi moo ñu xaw a njëpp et puis actualité bi àndul ak euh, voilà. y a pas ba léegi si Sénégal démb ba léegi ñu ngi ci naqar donc lan ngay wax ci carrière musicale bi. donc carrière musicale comme euh, ni nga ko waxee on peut le faire peut Mm-hmm. prochain jour à venir. Mm-hmm. donc euh, c'était un plaisir ñëw joxe sama xalaat ci côté migration. Mm-hmm. di jaale képp koo xamante ne sa doom des na si ndox bi. di ñaan le gouvernement sénégalais. qu'il puisse donner la paix. les jakartaman. dawalkat taxi jakartaay parce que la jeunesse. bu demee ba ñëpp dee kan mooy yor réew mi. policier si boppam après ñan la ñuy encaisser. duuti impôt ñan lañ koy teg mhm. te yow man dee naa jeunesse bi yëpp dee nañu léegi policier fu ñu taxaw noonu mhm. kan moo leen di fay impôt mhm. si la jeunesse sont tous morts donc il faut que ñu may leen tuuti ñu respirer tuuti quoi bu ñu doon fay impôt dix mille ñu wàññi leen seen benn mille franc parce que koo gis mu gëdd dëkkam fu muy liggéey mu ngi liggéey di gis xaalis bi mais en rentrant ñu arraché xaalis boobu donc là Euh, di di di ñaan euh, le gouvernement sénégalais ñu bàyyi xel tuuti euh, à la zone mm-hmm. sénégalaise mm-hmm. te ñu wax si aussi ñi doon wax jamono gouvernement yooyu noonu mm-hmm. ñu bañ a noppi tamit ci gouvernement bii nii maanaam ñu wax si parce que c'est maintenant l'âge de dix-huit ans vingt ans ñi dee ci ndox bi moom c'était trop donc carrière musicale artiste là donc septembre ça war Grand Théâtre, euh, le concert de Saifon Balde mm -hmm. et Mia je serai dans la partie. am naa sama ñaari single yu génn dernier clip Kédougou Tamba c'est disponible aussi sur euh, YouTube. donc euh, war a jàll sama dëkk nag di waaye tournage benn clip. Mhm. xam naa ni comme ni nga ko on va en venir au euh, si promo bi. voilà donc bu jëree déplacé wu ànd ak yow. voilà tour artiste bi mooy Black Rocky sur YouTube donc mm. di di jaare képp koo xamante sa doom des na si ndox bi. di jaajëfal. Mm, seen teranga seen teranga TV. Mm, et di jaajëfal MC aussi. et voilà c'est un plaisir. de donner bi ma waxee waxu migration. ma ne ko même si on ne me pose pas des questions dans carrière musicale je serai très très. Euh, content de donner mes idées côté migration. donc di voilà c'est ça. et puis ñu xam conséquences yi ñu xam également. tukki baax na trop mais ko jaar euh, ci yoon bu légal tamit c'est bien. et puis dernier mot. Uh-huh. la jeunesse doit toujours euh, gën a kontaan loo seen xolu yaay aussi. sa yaay mënul jooy fi nga toog ci gaal il faut qu'il s'approche au uh-huh. moment parce que la douleur est personnelle uh-huh. le bonheur se partage loolu buñ ko xamee rek mun nañ gën a jege seen yaay waa yaay ñaaw na mu ngi jaay tabal ci mbedd foos mu ngi génnee ndox jege ko rek parce que yàlla amatul dara loo xamante ne mu ngi fay ni ni lu dul ni ngay toppatoo sa yaay ni ngay toppatoo sa voilà ñu gën a bàyyi xel suñu waajur yi voilà waajur yi euh, merci beaucoup Rocky Black ah Black Rocky. Uh, Black Rocky, voilà. Black, Black Rocky, Rocky uh, de son vrai nom, Alassane. Alassane from Kédougou. Alassane from Kédougou. Kédougou, Kédougou. Ouais, Alassane from Kédougou. xam naa nañ dem benn jour Kédougou man moom bëgg naa fa dem ah. Kédougou waaw maa ngi lay xaar mooy fu ñuy gas bi rek quoi. waay waay incha allah incha allah nañ jàpp benn date def benn ànd ak yow dem Kédougou def pourquoi pas profiter aussi defaa def fa ay reportage mais également waxtaan ak yow ci carrière bi. bari na fa bu ñu fa jógee Kédougou ñu jaar Tambacounda ñoom African Vibes. waay ñu ngi lay xaar quoi y a incha allah merci beaucoup euh, waxtaan baa ngi noonu di gërëm baax seen bi nekkoon ci réalisation bi Black Rocky moom la ñu dalaloon Alassane moom la ñu dalaloon moom nekk euh, dafa demoon ci yoonu euh, géej gi jaarale ko Libi gis ngeen expliqué leen li nga xamante jot na ko faa dund waaye jox na conseil xale yi nga xamante ni ñoom ñoo am bëgg dem te bëgguñu ko bëgg ko jaaree ci yoon bi nga xamante ni compliqué la trop mbuur nag jamono bii ak Sénégal bi ñu nekk ci tiis ak naqar lu toll ci fanweer ak juróom-benn doomu aadama ñàkk seen bakkan ñu ngi xalaat sax yeneen corps yi ñuy repêché donc nekk na tiis bu bu doy waar merci beaucoup jaajëf.